li ma gis loo xam ne seen naa ko te seegul mu sori lool muy jamono ji dara mënu ko jubbanti lu dul Makarimal Axlaaq dara 2016 la ma ko waxoon man moo tax lu ñëw lu essi rek man sëriñ bi waxoon na ma ko ba xam ne def naa ko sama bopp euh, Makarimal Axlaaq googu nag ñun si nga fekk ñun ñu si góorgóorlu ñun si dox euh, jeunesse bi nag nañu góorgóorlu ku ne mën nga am foofar surtout si mbiri àddina yi nga xam ne ñu ngi koy dégg yi nga xam ne dafa xew si àddina ñii di si sonn ñii di si tumuranke ñu si yàq ay mbir yoo xam ne jaru ko euh, loo xam ne euh, seen bëgg-bëgg rek la te ñun jàpp naa ne ñun ñun ñun sénégalais yi ñun ñëpp ñoo war a bokkandoo àndandoo jàppandoo xàccandoo di dóorandoo ko mën a jéggal sa morom nga jéggal ko te yàlla tax koo xam ne mënoo jéggal mënoo koo jéggal tamit nga bàyyi ko mu def lu ko neex te lu waay def bu fekkee luy lore la te te loolu tax la saa jublu sa kaw lay daal sëñ waxoon na ko fii fii euh, réew mii dara du fi yàqu képp ku fi bëgg a yàq sa kaw dal waaye kenn mënu fi yàq dara chef de kër mas na ko wax ne euh, euh, Touba gi mes na fee ñëw wax ba yàqoo fi waaye munu fee munoo munoo fee wax ba yàq fi dara daal de Touba gii mooy Sénégal gii te senegal gi nag kenn moomu ko gis nga xale yi toog nii ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ élection maire yi bi ñëwee fii am nañu fi ñëw dërdëri fii ku fi ñëw ma ñaanal la maire bi nga xam ne moo fi nekk bi mu ñëwee dama ne ko yow yaa fi toog ñu ngi lay ñaanal boo fi waree toogaat nga toogaat fi rek ñu bu fekkee waroo fee toogaat na fi keneen toogaat nekk si jàmm waaye man nag ñii laa am muy sama taalibe ñoom rek laa am su may xëy ñoom a tax di xëy su ma wàccee toog fii ñoo ma tax wàcc toog fii waaye du kenn li may am yàlla yónti bi sëñ Tuubaa laa ko yaare ak Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallu ak sëñ Fallu mi nga xam ne moom mooy Cheikh Abdou Karim Mbacké lu lu loolu maa ngi si li ma nekk nag nañ gën a góorgóorlu te bàyyante xel te suturaante si dëkk bii si réew mii nga xam ne ñun réew mi si sunu réew la bugguñu fi ak ñaawteef kilifa diine yi defa nañ lépp ñun nag ñoo dox dox dox ba suñu jamono yegg si fii ñu bëgg di xiiroo di ŋaayoo amul njëriñ waaw xam nga kili foofu lu tax ma tontu bu gàtt laa fay tontu euh, kilifa yi am na loo xam ne euh, biir lañ koy waxee am na loo xam ne bit lañ koy waxee kilifa yaa ngi wax si biir ñu ngi ñaan si biir ñu ngi def si biir du lu kilifa yi def wala lu ñu wax rek ñun dañ ko war a yëg ñi ñu war a wax ak jàpp naa ne kilifa yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa ñun ñu ngi wax ak ñoom si ni ñu war a waxee ak ñoom ñoom kay ñooy xool loo xam ne buñ ko defee. lépp jàngandoo ñu def ko mais kilifa yi moom jàpp ne wér na ma moom ñu ngi wax moom loolu wér na ma moom waaw lu rafet lu ñu yaakaar ñu ngi si wax léegi nag ñi ñuy waxal ak ka ñuy waxal mooy xool ne lii mooy jariñ moom jëriñ ñu ñun jariñ kilifa yi ko waxal moom mu def mu defee loolu rek la